ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer sa alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na leen nuyu bu baax di am mbégte ci dalal bi ngeen ñuy dalal tey pour ñu waxtaan ak yéen ci li xam ne mooy làmb ak actualité di nuyu ni koy waxee Leewtoo TV Lutte TV Kewel Info di nuyu ñëpp di nuyu personnel yi di nuyu dëgg yàlla ndax suñuy kër nekk ci làmb di ci liggéey lu am solo ñu gis fan yi làmb yi ni muy doxee Fallou Ndiaye ci biir làmb. Mhm. doxalinam ci biir làmb ak taxawaayam ci biir làmb. waaw laakaar euh, naa làmb moom. ku xam Fallou Ndiaye xam Ndiaye production label bi ñu ci jiitee xam ne daa am philosophie boo xam ne moom lañ ciy doxee am gëm-gëm boo xam ne moom lañ ci am ak ambition yoo xam ne am nañ ko ci làmboo ndax bi ñëw ci làmboo ay tout tànk lañ woon di ko fekkante di dugg ci lu ne ci làmboo yaakaar naa ba yàlla andil ñu tey fi mu ñu ëgsil ci làmboo bariwul nag sorewul ndax jàpp nañ ne ñooy promoteur yi gën a ndaw ci làmboo mais teewul nag askan wi ñu ngi bàyyi xel ñu ñuy déglu te li ñuy def vraiment ñor na leen ba ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax daal. Mm-hmm. mais dañu gis làmb ji mënoo lim quatre promoteurs wala cinq te doo ci boole Fallou Ndiaye mu nekk promoteur boo xam ne saa bu wootee rek képp kuy dund làmb ci am mbégte ak kontaante loolu secret boobu lan la. waaw moom loolu waa Ndiaye production la rek équipe bu production bi xam nga Ndiaye production du Fallou Ndiaye kese ndax bu doon ñun kese la tey jii mën naa am bu ñu wootee benn nit du ñëw wala ñaar mais dafa am équipe équipe bu soudée équipe bu dynamique équipe bu am gëm-gëm am ambition jël seen ay moyens jël seen alal di ko def ci Ndiaye production ndax. Ndiaye production mënuñu ko def sans équipe boobu ay ñoom Malick Balde Tafa Mbeng ay Mor Parcelles jiite ko Fallou El Cap waaye Moussa Fall ñu ci liggéey liggéey bu am solo di ci bay seen waa bu baax a baax a baax a baax nag kon duñu def lu leen sant ndax tey bu ñu amaatee dee bàyyee xel Sénégal di ñu bàyyee xel équipe boobu am na ci solo te équipe boobu moo tax tey ñu ñuy bàyyee xel kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne incha allah nañu yokk cee doole li ñu la di la remercier li ñu accordé interview maintenant Bira ki euh, Aliou Sarr def na fi vingt six ans vingt six ans maintenant dem na bu doon def bilan Aliou Sarr lay nekk. waaw bu ñu doon def bilan Aliou Sarr la ñuy def la ñuy wax ndax li ko waran ci làmb def na ko fi ndax Aliou Sarr bi muy ñëw ci làmb boobu mën na ni juddu ñu wala ay xale yu ndaw lañ. Mhm. ñu ñëw fekk ko fi muy liggéey liggéey bu am solo. Mhm. liggéey ak ambition bu am solo liggéey ak caractère. Mhm. vraiment Aliou leen rek lañ doon ju jooy ci moom. mooy ñàkk a déglu bi ñàkk joxe nopp bi cent pour cent. mooy monde de la lit mooy acteur de la lutte yi nga xam ne ñoo ci nekkoon mais su fekkoon ne doon leen déglu normal jàpp naa kenn doon leen wax pour mu dem wala kenn doon leen ñaan pour mu dem ndax lamb kenn mu mënu cee génne tey bailleurs yi te bailleurs bu ñuy wax dafay jar nga leen di déglu di leen bàyyi xel tuuti dina tax daal euh, fa ngay jëm am nañ jàpp na dañ fa àgg tey bailleurs yi bu ñuy wax bañ a wax pour seen intérêt personnel mm-hmm. di wax intérêt pour làmb di wax intérêt pour population bi di wax intérêt pour amateurs yi ak Sénégal. Mm-hmm. Bira Sène ñëw na. Mm-hmm. bi ñu ko nommé est xaaroon nga ko. tur bi surtout. non Bira avant ñu koy nommé xamoon naa ko mais franchement parler mosuma jàpp ne Bira Sène la ñuy def président CNG mais nag biñ Alioune Sarr président Alioune Sarr demee njortoon naa ne mën na koo nekk ndax amoon naa écho yow waxe yuy joxe ne mën naa am cible bi ñuy def Bira Sène bokku ci muy nit ku ma xam ndax seq nañu ay relation am nañ événement bu ñu waan def Kaolack benn jour yenn nañ ba ngoon jot doon waxtaan ci événement bu biir Kaolack mu yi ñu dalal ñu ak ci respect ak dal mhm. kon mënuñu wax ci moom leen lu lool li ñu xam ci moom. Mhm. mu ñëw commencé waxtaan. Mhm. est-ce que door bi yow satisfaire na la ni mu dooree. waaw ni mu dooree de wax dëgg yàlla ci côté ban. Ah, waaw ni mu dooree waxtaan bi euh, man li ma ci fekke de aw ma ci satisfaction wax dëgg yàlla li ma ci fekkee ndax. Euh, su fekkee ne président CNG président CNG dafa woo promoteur yi ñu ñëw toog ñuy waxtaan jàpp naa ne respect war na fa am yar war na fa am discipline war na fa am communication bu jaar yoon war na fa am ci ñoo xamante ni dañ leen a copte ne ay membre de CNG de lutte lañ ndax manque de respect am na fa manque de yar am na fa ndax dañu jël ke dañoo jël parole ñun ku ñu xam ci suñu ay philosophie ak suñu ay wax lépp lu ñuy wax duñ ko làq dañ koy leeral ñu xamal ne leen ne li xew ci làmb ji mooy comme yéen a woone dañuy defar li fi xew mooy dañoo gis yenn fonction yi ni ñi di ko doubler te jàpp nañ ne tripler fonction wala doubler ay fonction ci làmb wërta mën a nekk ñun nga wax ñun ñun ñen yow en personne wala yow ak sa kuréel. non lamb promoteur yi laa wax ak menacé yi ak lamb. kan moo doon wax loolu laa wax. yow man maa ko wax ok waaw man maa jël samay responsabilité maa ko wax maa ne. Mhm. dama lay poser question. dina laaj ndax promoteur mën nekk promoteur question boobu yaakaar naa moo ni problème bu fa am yëpp. Mhm. bi ma ko waxee président bi xamal ne ma nit mënta nekk menacé nekk promoteur ma ne ko loolu rek la woon laa doon laaj mais question boobu tey jii andi na fa coow loo xam beneen question ma ne ko est-ce que tey bu promoteur yi toogee di waxtaan est-ce que menacé na ñuy ñëw ci ndaje promoteur yi ndax tey bu ñu wooyee menacé yi du promoteur yi dañuy ñëw kon tey bu ñu wooyee ay promoteur promoteur kese ma fa nekk menacé faa nekk te tey comme yéen yéen a ne nit mënta doubler deux ñu gis ay nit ñoo xam ne nii image bu ko xoolee da gis gis nañ leen bi menacé yi ñu wooyee menacé yi ñu ñëw toog ñu woo promoteurs yi non du ma cité turu jàmbur du ma cité turu kenn ñu woo menacé yi ñu ñëw toog ñu woo promoteurs yi ñu ñëw toog may leen loolu ñun ànduñu ci man ma ci ndax li ma d'accord mooy boo dee menacé nga bu ñu wooyee menacé yi nga dem ci cadre menacé yi su dee promoteur nga bu ñu wooyee promoteur yi nga dem ci cadre promoteur yi loolu laa wax fa la réunion bi jàmm jeexee saaga ndey sax am na fa devant le ministère de devant le devant le président CNG saaga sa am na fa. saaga ndey am na fa ci biir. mais nag yàlla dogal na ñun suñu ay philosophie ak suñu ay caractère fi ñu toog bougé wu ñu jóguñu ndax kenn xamuñu wala boog ndax président bi daf ñu woo ñu war a ñëw wuyu ko ci jàmm ak respect jàmm ak respect bi ñu ko war a wuyu see waruñu cee mais damaa gis ne membre CNG boo xam ne dañ ko copte ne CNG la bokk ci biir CNG la bokk taxaw devant ñëpp promoteurs yi taxaw nga ne taabal ji ñu toog kenn xamu fi dara xamu leen dara man maa xam lam man képp président CNG toog vice président bi toog ñu yor seen communication ñëpp toog nit taxaw ne yéen xamu leen dara maa xam lépp. mais ko mais <laughs> maa ngi wax nii ñu ngi may dégg ku ne xam nga li nga waxoon foofu président CNG ba nga may dégg biñ ko waxee samedi la woon àjjuma la woon àjjuma la woon ba tey la lan mardi amul benn réaction bu président CNG bi def est-ce que tey ñun jooyuñu Alioune saar ñun ñu doon wax naan na dem <laughs> président Alioune Sarr amul nit amul fitu mu toog nga taxaw naan yéen ñu toog ci taabal ji xamu leen dara ñu wax nga ne yéen ñu toog taabal ji xamu leen dara làmb man maa ko xam sama loxo la nekk xamu leen dara président bi toog ñëpp toog ñëpp moo wax ne waxu bàyyul kenn dane ñi toog ci table ci ñëpp président CNG vice président ak secrétaire général ba ak ñëpp a toog mu leen xamu leen dara. mais ñi siiw Fall te bëgg xam. waaw dañ bëgg xam ba xam ci wax loolu noonu promoteur la. wala financeur non promoteur loolu la du ko def nañu wax dëgg promoteur yi duñ def loolu ndax promoteur dañu am classe. xam ne ñoom duñ ci dugg. mel noonu. CNG bi nga ñëw ñu installé la bees mu sa kër war ngaa mën a jël say responsabilité ba nit ñi xam ne jël nga say responsabilité ndax tey ñun dafa am compréhension bu ñu am mooy ki ñu dalal nit ku bees la nit la ku dal nit la ku teey nit la koo xam ne nii defar làmb moo ko yëkkati ku mel noonu suñu wooyee ñu gis ko ci kanamam gis ko ci waxtaanam kon mënuñoo wax lenn lu jox ko yar ak teggin ba génn foofu waaye nag ñu ngi doon xaar seen réaction lan lay nekk mais nag boobaak léegi yàgg na te dégguñu seen benn réaction ñu leen di xamal ne bu ëllëgee lu mel noonu amee CNG ni nit ñi ni ñooñu nañ jëfee ñun dinañ ni jëfee wala boog man dinaa ni jëfee te réunion ndax nag doo nekk ci see ci làmb di wax lu neex def lu neex te du mujj fenn président toog ñëpp tam ngeen xamu leen dara amu leen benn xam-xam xamu leen dara man maa xam lépp nii la ko waxee. léegi ñeneen ñi leen moo nekkoon seen seen seen réaction. ba pare ne ñi ma àndal jóg leen ñu dem. ñu àndal jóg ñu ànd dem génn ay membre CNG dem di négocier ñoom pour ñu ñëwaat mais ban monde lañ nekk ak ñan lañ denk suñu làmb ji wala ñan lañ ko war denk dénk bi ñu toll ñan lañ ko war a <laughs> mais ñëw nga réunion lu toll ni président CNG wala ak ay eh, nitam yow nga bokk ci CNG bi wax sa lu neex wax ba saaga waxu lu neex ne xamu leen dara ngedd ànd ak say nit dem ñu jëliwaat la neeloo kaay toogaat ci réunion bi nga toogaat ci réunion bi réunion bi fa la yem. kenn àggalee ko bu ñëwee ñaari baat la ñu wax nga découragé ci ci CNG bu bees bi ak. gisuma lu xam tamit gis nga président bi na jël ay responsabilité am lamb karawaase koy yor da ngay jël sa karawaas di karawaase njëkkee ko ci man fàllu su ma defee lu nañ ma teg ci yoon keneen noonu keneen noonu Lamine. mais Caravage est-ce que bokkul amul est-ce que bokkul ci li yàqal Alioune parce que tey jii Alioune Sarr ñu bari loolu moo taxoon ñu ñu. Lamine dem ba jéppi ko. waaye Lamine Alioune Sarr lu lu ko nit mën a waxal waxal ku mas a dem man def naa presque douze ans wala treize ans ci làmb waaye mosuma fekk ci réunion Alioune Sarr nit dépassé ko wala nit wax fa nag tudd noonu wala di wax Alioune Sarr ne noonu bi ñaan ne ma sàmm gis naa ko euh, euh, euh, wuñ ko woon daal si kanam gisuma fenn fuñ ko joxe cër ci biir réunion bi ñu doon wax amul benn cër buñ ko joxe ndax comme doo noppi en tant que président CNG ak kon ñun dafa jar nag ñu alerter askan wi pour ñu xam fan lañ jëm ndax làmb ji dañ ci jël suñu alal ju bàyyi di ko ci def comme dañ ci def suñu alal ju bàyyi nag suñu gisee luñ xamul ñun dinañ jël suñu ay responsabilité en tant que Ndiaye production waxuma pour A waxuma pour B mhm. ndax man waxaluma kenn sam bopp laay waxal ndax li ma gëm wax ndax ña fa nekkoon bari nañ ñii ay membre CNG lañ ñii ay promoteur lañ mais kenn jëlu say responsabilité pour dénoncer la nga xam ne moo xewoon ci saal ba bàyyi na presse gis naa presse bu ñëwoon gisuma kenn ku ci bind dara ñu ngi toog ñoom ñëpp garder silence damaa xamul nag ñun lan mooy suñ problème léegi ba lamb kenn dootu ko jooyal lamb kenn dootu ko waxal dëgg lamb kenn dootu ko waxal luñ ci gis président bi dañ koo dénk loo xam ne ni askan wi ñoo ko bokk ñun waxuñu pour fàllu dañuy wax pour lamb lamb moo ñu ñor ñu ciy wax buñ gisee loo xam ne da koy faagaagal wala da koy yàq dañuy jël suñu ay responsabilité pour wax ko tey ministre des sports li mu waa def la def ndax lamb ñëpp doon kaas mu jël ñëpp ku ne mu jël la séddale ci lamb ne la teel fii teel fee kon yaakaar naa bu ko defee ba pare li mu waa def mooy maa maandu ci làmb bàyyi ñu ko war a doxal ñu doxal ko mais man ni ma gisee làmb nii. Hmm. ah bu ñu ba ci kanam danañ ñëpp sénégalais yëpp nañ gis li may wax te danañ seen bët. Hmm. ndax li ma jàpp mooy président CNG bu ñu koy fal. Ah. dañ naan yow la président jëlal say conseil nga ànd ak ñoom waaye bu ñu la falee falandoo la ak ay nit mënoo leen a jiite de dañ naan nag maa fal décret bi la nommé ma nommé la ñuy wax de. ku ne sa yoon bopp nga jël ku ne lu neex ngay wax la loolu nga gis ci CNG loolu laa gis nii ku ne lu neex ngay wax ku ne lu neex ngay def loolu laa fa gis te loolu taxul làmb yi dox làmb du xewutoon noonu de. kon yow jàpp na jàpp ne instant bi euh, kii moo koy jël Bira Sène mais li ma gis man li ma sama xel may man Fallou laa wax de tant que Fallou ku ne nag am nga doo wax sa opinion waaye li ma gis gëw ma ne moom moo yor dernier kàddu bi te nag moom moo ko war a yor ndax sénégalais yi moom la ñuy xaar ci loolu ci moom. damaa bëgg nag moom Bira hmm. en tant que président mu hmm. jël ay hmm. ndax nag moom lañ dénk lamb ji de ba ko ko koy dénk muy ministre bi dénk ba pare moom moo war a jël ay responsabilité am jëlatul muy compte kenn lu rut lamb tëj na mu dem rendre compte ministre waaye moment bii wóor te rendre compte kenn ku dul dem liggéeyi ànd ak équipe am ku mu war a sanctionné ñu la ku tegul ci yoon ñu teg la ci yoon waaye nag bu fekkee ne ku ñu ku am problème dañuy dem waxtaane a ñëw pour xool lu ñuy def non mais léegi Fallou maanaam woote bi sabab bi lu waroon sabab bi mu dajale promoteur yi. pour waxtaan ak ñoom am na si wala amul si après fa la mujjee. non li waxtaan bi lu am solo la ndax mooy li ma la wax sàng mooy président la nit ku dal la nit ku teele ci liñ gis ci moom bi ñëwee woon nañu ko. bi mu ñëwee dañee ñu damaa ubbi samay porte pour ñu waxtaan ci jafe-jafe làmb ak li nga xam ne moo leen ci naqari woon pour ñu waxtaane ko liñ ci mën a saafara ñu saafara ko liñ ci mën a saafara ñu xam ne lii koo defar fa la bi ñu ñëwee ñun wax nañ ko suñu ay point wax ko ay argument xamal ko nañ ko ne ko làmb soxla na 15 mba ndax temps bi mbëru ndaw yi bëre war nañ ko mën a wàññi dugal ci 15 dugal ci yeneen 10 mbër muy 15 combats ndax licenciés yi bari nañ te xale yi bëri bëriwuñu te war nañoo mën a permettre xale yi di bëri lu bëri ndax boo gisee li xew fan yi nit ñaa ngi dem ci gaal yi mbëkk yi lu bëree ngi am te loolu tey jii pour ñu mën cee rey suñu bopp pour mën koo wàññi mooy il faut ñu commencer di produire production bari ci làmb mooy au lieu que dix euh, vingt mbër trente mbër di bëre par jour par par samedi par dimanche bu fekkee am nañ trente soixante lutteurs dañuy bëre ci samedi ak dimanche stade ne ñu mën bi dina ëpp sax loolu tey loolu jàppale yaakaar naa état la ci emploi des jeunes yi nga xam ne moom la ñu war a kii kon jàpp naa ne tey promoteurs yi ñu ngi béy seen ci côté boobu yeneen priorité yu gën a nekk wàññi licence promoteur ndax priorité yi nga xam ne moom promoteur yi gën a soxla mooy stade Arène Nationale na sécurité bi seer na te promoteur yëpp yemuñu même niveau yemuñu même niveau ci capacité ci poste ak ci lépp kon war ñoo mën a xalaat ci wàññi Arène national bi wàññi li nga xam ne mooy sécurité bi bi ñu ko waxee tamit dalal na xelu nit ñi xamal nañu ne incha allah rabbi dina waxtaan autorité yi ba xool nan la ñuy wàññee euh, sécurité bi dina ci waxtaan ak ñi mu ci waxtaanal bu dee côté stade bi na ci ak ñi ko gérer ba nga xam ne nañ ko gën a mën a wàññi ba mën cee gis seen bopp mais ñun boo gisee bëgguñu woon sax ñu wàññi licence yi mooy promoteur yi dañoo sonn Lamine da ngay gis ku ñëw yor 500 mille wala 300 mille jël licence promoteur ñëw ne promoteur la jël ay billets defar ay billets jox ay mbër ne leen dem leen ngeen jaay su ngeen payee jël seen avance jël seen reliquat tey kiy wax loolu danaan promoteur yi du ne promoteur diw de déedéet danaan yi. léegi bu ne promoteur yi tey man dama ciy gis bopp benn promoteur ci sama kenn da ci gis kon jàpp naa ne bu licence bi gën a yomb est ce que du facilité yeneen promoteur yu bees yu gën a ñëw gën a maa def loolu jaru promoteur di gën a yàqu te or promoteur yëpp du ñooy def loolu am na ñoo xam ne ni fañ nekkoon ba tey ñu nga fa di organiser seen ay lamb di joxe ay avance di joxe ay reliquats mosuñu am problème ak CNG mosuñu am problème ak dara kon tey jàpp nañ ne wàññi boobu tamit jaaduwul ba ci licence yu gis nañ ne wàññi bi mën naa ñàkk licence yu menacé naa ñàkk li ko la mooy man mosuma déglu benn interview menacé bu kaas ne sama licence dafa seer mosuma dégg fu ko Pomodoro waxee mosuma dégg fu ko Mbër waxee te bu dee li dafay frappe ñu def ko 10 000 francs na ndax tey CNG dafa am war a fonctionner te budget moo koy fonctionner te budget bi yëpp du ci état tey CNG dafay soxla ay ressources yoo xam ne nii moom lay mën a jël di ko mën a fonctionner moom ci boppam ndax nag ñun dañu doon toog a président Alioune Sarr di ko jàmbat yenn yi mu ñuy xamal ne li ngeen ñuy jàmbat suñ ko wàññee CNG bi dootul dox. kon tey CNG bi dafa dox ñun bëgg topp suñu bëgg-bëgg wala bëgg lépp yomb ba gàllankoor CNG bi ñun mënuñoo def ñu jiital jiital ko nga ne mooy intérêt làmb a jiital mooy intérêt ñëpp di ci gis seen bopp muy amateur bi muy mbër bi muy promoteur muy ki xam ne mooy menacé bi ku ne mën cee gis sa bopp mais nag bu ñuy ubbi lépp mu yomb mën ñoo gisaat leneen loo xamante nii du loon li ñu doon séntu ci làmb pour mu tegu ci yoon bi bi ñu soxla. ok euh, sànq yaa ngi wax Bira Sène su ma la déggee mooy que ne yow da ngay dute que ne Bira Sène amul capacité pour diriger ñi mu ñi nekk ci gannaawam. non waxuma amul capacité du ma dute ci am na capacité bi mais dama ne ko dama bëgg nga jël sa ay responsabilité ndax yow laay président président nag moo jël ay responsabilité xool ci li ñu ko booleel ki ko ci neexul wala ki nga xamante ne ni li muy def dëppoowul ak li nga xam ne loola làmb soxla ñu génn la teg la nee xool li doxal làmb pour intérêt ñëpp nga def ko. mais nag li amoon kera mu nëpp nëppal ko mu nëpp nëppal ko laa wax mu nëpp nëppal ko noonu defu ci benn réaction kenn déggul fenn taxu làmb dem de ndax nit ñi kenn mu seen gémmiñ te kenn teewul du leen tee wax te it am nañ ñoo xam ne ñoo seen communication CNG bañ fa jógee ba fi may wax yow amul kenn ku wax ci kàddu ci wax boobu dañu bëgg na bàyyi nëpp nëppal bu seet ndax fii luñ fi nëpp nëppal amu fi su fekkee dañoo gis loo xam ne injustice la ci làmb ñu koy dénoncer wax ko pour nit ñi xam ko pour nit ñi teel a xam ko ndax man bu fekkee ne réunion bi am fàttali noonu la réunion CNG yi continuer wala noonu lay mel billahi wallahi di ngeen gis ay jaaseeg ay paax génn biir CNG de lutte lii man maa leen ko wax ndax nag keroog vendredi su fekkoon ne ñun ñi fa nekkoon amoon nañu yenn euh, réaction yi billahi wallahi laa la wax jaasi na fa génn paaka na fa génn wala pistolet nafa génn te naa ñàkk te bu fekkee ne yow yaay boom kër gi di jiite boo jëlee responsabilité yi nga war jël loolu am wax normal mënoo ko génnal sama sama bureau am na ci droit am na pouvoir am ndax mooy président bi am na droit ku mu wax mu ne la noppil nga bañ mooy la génnal sama salle génnal bureau bi buñ paree nag ñu doo consulter seen biir waxtaan xool fan lañ jëm ak yow yow mi nga xam ne yaa doon perturber seen réunion mais li fa am mosuma ko gis ci làmb c'est la première fois ma gis ko muy vendredi passé te ci Ayib Birane Sène laa ko nag kon na jël ay responsabilité am. mais léegi maanaam moom problème am lan la parce que dañuy gis depuis bu ñu dugalee ay promoteurs. ci biir CNG rek dafa mel ne moom xaw ma da cee àndul wala da doon wala moom da doon xaar pour ñu woo ko mu bokk ci biir CNG te woowuñu ko si ba tax muy sànni ay xeer wala muy classe gars yi qu'est-ce qu'il y a lan la quoi. kooku la yow yow. non non attends man man man ma man honnêtement wax nañ ma ndax da ngay bokk. ci CNG may leen bokkuma jël leen ñeneen ngeen bokk man bokkuma xam nga lu tax man kàddu askan wi moo gënal toog foo xamante ni du ma a wax. li may naqari man dama bëgg fu ma mën di nekk li ma naqari wala mu naqari pour askan wi askanu làmb man ma koy wax ndax na du ma dugg ci groupe boo xam ne dañ may boole ci loo xam ne dañuy rëcc sama gémmiñ doo man kenn rëcc sama gémmiñ nag ndax li ma gis luy injustice dinaa ko wax lu ma gis ñu def ko ci lu baax dinaa ko wax bi ma gisee ñu wàññi licence yi dëgg la waruñu ko wàññi mais dama koo rafetlu ndax am na ñu ko soxla du ma leen ci balaame mais nag am na ñoo xam ne soxla nañ ko mais day indi yeneen gàllankoor yoo xam te ni mooy gën a garaaw kon mën nañ ko bàyyi fa mu nekkoon mais nag teew def na lu rafet def na lu baax en tout cas nit ku baax la nit ku dal la gis naa ko ci kanamam mais làmb daa am jukko ju koy yor am caractère buñ ko war bu ko war a téye te gisuma lool ci moom instant yi léegi solution bi lan léegi Fallou solution bi. non solution bi kay euh, Lamine ñoom ñoo koy yow kii ñoo euh, kii ñoom ñoo koy ceer ñoom ñoo koy xool ñoom ñoo gis la fa xew man dama leen di wax ne leen la fa xew su ma toogaatee ci réunion CNC lu mel noonu xew fa Lamine la fa xew su ma doogaatee ci réunion CNC lu mel noon xaw fa suñuy génn CNC ba même président bi sax na génne neneen waxatuma laa nag keneen ndax dinañ jël suñu matuwaay yi ñu war a jël ba mat sëkk bu boobaa. dernière question gis nañ vendredi bii passé loo de presse ne moom pare na pour huis clos loolu. non loolu mënu koo cautionner li tax mënu ma koo cautionner mooy ah, lamb du football lamb du football te dañoo nekk ci population boo xam te ni. population bu doy waar la mooy am na ne bu ñu ko comprendre gëmuñu ko pour nga dugal leen si du yomb c'est-à-dire lamb véhiculo promoteur mooy def business génn mu def ci amul benn promoteur buy nungu soit état mooy subventionné wala état jël benn affaire teg ko taabal bi ne ah lii kat maa promoteur bi te loolu état bi gëw ma mu def ko néew ma du ko def mais gëw ko ndax ku mel ni combat Modou Lo Ama Baldé ñu def ci presque trois cent nangam millions. état du génne 500 millions da koy teg pour 8 kilo du ko def gëwuma ko ndax nag bay na ay promoteurs yu fi nekk su ko defee dinañ ko defal te mënu ko defal kii bàyyil ko kii. moo ko bu fekkee pay-per-view day am lépp day am man gëwuma 8 kilo am ci làmb pour l'instant. mais actuellement làmb li ciy xeeñ ñi na wala nekkul promoteurs yi ak saison bi kañ lay tijji. non xam nga saison bi moom euh, kañ lay ubbi kooku yaakaar naa pas de responsabilité autorité yi la <laughs> yaakaar naa dafay dafay romb sax ministre des sports. ndax autorité bu mag bi moo waxoon ne làmb nañ ko tëj ci décret bépp manifestation bu am nañ ko tëj ci décret yaakaar naa décret boobu moo man a pour làmb am. ah mais est tamit ubbi yëpp bàyyi ba mu des làmb kese. waaw mais lamb dafa rafle dafa rafle léegi nday amul bàjjen amul bàjjen amul nday da koo rafle léegi xam nga lu tax. lépp xam nga lu tax léegi Lamine. Ah. mooy euh, làmb ñi ci daan kaas. ñi ci daan kaas ñëpp am na fuñ dugg ak ñoom ba mënatuñoo wax dañuy toog jàpp seen jàmbur. dañ leen dugal ci ruq. waaw dañ leen dugal bu fi gars yi il faut ñu fa xool li nga xam ne mooy intérêt làmb ñu ciy wax loolu mooy problème bi Lamine la làmb amatul bàjjan nag jamono yuñ toll amatul bàjjan de ah, actuellement boo xoolee concert ni muy defee salle yi ni muy xate vraiment stade yi du xate noonu ay national mën nañoo jël ay mesures barrières yoo xam ne nii mën nañoo def nit ñi ay pàcc-pàcc ci yenn yu yem même événement yi may sax ku ñëw takk sa masque def say mesures barrières jël gel jël lépp ñu tegal la jar sax ñu exiger promoteur bi ne ko indi ndax masque yi seeru cent francs lay jàng hmm. ñu demee teg sécurité bu doy boo xam ne nañ mën a séparer ñu def ay distance yoo xam te ne nit ne ma teran lamb sans problème hmm. loolu lépp ay xalaat la mais nag est ce yi tal nañ ko loolu mooy suñ problème est ce que yi tal nañ loolu tey mbëkk mi ñuy wax nii mais nit ñi lu ñu def population bi citoyen ñoo lu ñu def xale yi amatul luñ def demuñu fenn mënuñoo fu bëree mënuñoo football mënuñoo def dara lu ñuy def Lamine dañuy doog fii xiif di leen rey ndax réew mi sonn na <laughs> Lamine di profité di jaale per Balla Gaye suñu papa di ko jaale famem yëpp boobaag léegi defuñu sort di génn ku mel ni Pape Bouba Diop tamit ñu ngi koy jaale wàlle bu baax a baax ndax moom vraiment sigil na Sénégal ku ne xam na li mu defal Sénégal ku ne xam na ay capacité ndax way bi fay ndax coupe du monde rek nga ne maa dugal premier bi yaakaar naa histoire du ko fay kon ñu ngi koy ñaanal moom fa jëm ko fi nga xam ne fa la jógee di ko ñaanal Père Balla di ko ñaanal famille am bi ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti door léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba site internet bi prix yu accessible nga fay fekk. seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez-vous wala sax créer say alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na